asalaamaaleykum mbooloo mi euh, man professeur Bamba Kane maa ngi leen di nuyu nuyu bi gën a sell di jiital ci nuyo bi sama xarit sama sëriñ muy sëriñ Xaadim Mbàkke Kamal mu doon koo xam te ne muy guddi di bëccëg fu ma geestu gis ko sama ginnaaw docteur Madou Ba wax na ko sànq jóge nañ ci jamono boo xam ne ci ñu génn bëri na ay kilifa diine yoo xam te ne seqoon naa ak ñoom ay teraanga seq ak ñoom kóllëre waaye bañ leen soxlaa ci élection yi ñu bari ci ñoom du ñëpp nag ñu bari ci ñoom dañu ma wan ginnaaw waaye moom musuma wan ginnaaw te xam naa ne du ma mës a wan ginnaaw maa euh, di nuyu bu baax représentant parti politique yëpp. bu ma limee dinaa jum ñëpp a fi samay xarit yi def naa jox nañ leen parole ñoom ñëpp ñu wax ñu doon ñoo xam te ne ñii dama seq ak ñoom teraanga ñii ma seq ak ñoom kóllëre ñi ci des ma am ci ñoom cofeel bu rëy rëy rëy ñu delloo ma cofeel boobu noonu ñëw teew fi ñenn ñi teewul teewal fi seeni kilifay parti ma di leen gërëm di leen sant sant bi nga xam te ne nii am na fu mu tàmbalee amul fu mu yem may gërëm itam ñi nga xam te ne dañoo ànd ak man boobaat léegi yàgg na du ma leen lim ñoom xam nañ seen ko ñu doon ñoo xam te ne nit ñu gore lañ nit ñoo xam te ne amul lenn lu ma leen jox amul lenn lu ma leen defar au contraire ñu ëpp ci ñoom lu ne ñu leen koy dig fu ne waaye ñu ànd ak seen ngor ànd ak man ñooñu mënuma leen a fay maa leen di gërëm di leen sant euh, mouvement yi nga xam ne nag tey dañoo fas yéene taxawal ko mu tudd synapse synapse nag maanaam ci niñ ko abrégé mooy lëkkaloo bi nga xam te ne nii dañoo bëgg képp koo xam ne bëgg nga réew mi te am cofeel ci réew mi te am xam lan mooy solidarité mooy dimbalante suñu biir ñooñu ñu booloo doon benn say ngir xool naka la ñuy liggéeyee Sénégal synapse nag. bu ma ko tuddee am na sax ñu naan synap du synap de synapse la synapse mooy doxal lépp loo xam ne dafa nekk ci yaramu doomu aadama amul lenn luy dox ci gar eh, yaramu doomu aadama boo xoolee gis synapse moo ko waral bu ñu la waxee nga dégg synapse moo ko waxal booy xalaat synapse moo ko waral boo yëkkatee sa loxo loxo bi instant bi nga koy yëkkati nii liy jox ndigal loxo bi mu jóg taxaw loolu synapse moo ko waral synapse am solo nga xam ne bu doxul ci doomu aadama bi mooy waral doomu aadama bi taxaw bëgg a yëkkati loxoom nii du ko mën a yëkkati lu mel ni ki ay paralysé wala nit ki bëgg a xool dootul gis donc nag ñun dañoo gis ne synapse boobu ñun moom la bëgg a jox suñu tur ndax dañoo bëgg lépp loo xam ne dafa war a mën a yëngatu ci senegal war a jëmal kanam Sénégal. ñun tey jii nii suñu mouvement bi doon mouvement boo xam ne kenn munu ko cee jéggi ñu bëggee loolu jëm kanam euh, contexte bi nga xam ne nag ci la ñu créé bi nii dañ koo créé ndax ñu bu fu bëree bëri dañ faa jaar bokk fa man bokkoon naa ci ay parti politique yu bari mën naa cee lim parti bu mel ni grand parti bi sama mag sama xarit jiite ko muy Malick Gakou ma jóge woon fa bokkoon naa ci parti bu ñuy wax itam APR. bokk ci benn bokk yaakaar ma jóge fa ndax dama bëgg tam mu leer ne bokkatuma ci parti boobu noonu ndax amalgame yi bëri na waaye bokkatuma ci parti boobu loolu moo tax tey ba bëgg samp sama mbiru bopp ngir mu leer ndax expliqué yi moom dama cee sonn bis bu yàlla sax bamba non kii candidat wu diw la di affaire bi dil la dugg na fii lu ne damay passé samay journée yëpp di expliqué rek man li may expliqué université dafa doy sëkk boo ci bëggee boole nekk géejawaay ku ma bu di la expliqué aussi dafay mujjee métti loolu dama bëgg mu leer contexte bi nga xam te moom lañu ñu suñu mouvement bi nii mooy dañoo am yeneeni xalaat yoo xam te ne jàpp nañ ne Sénégal bu fa tegoo senegal mën naa jëm ca kanam ndax tey gis nañ ne dëkk la boo xam te ne bu dee sur le plan économique ci koom doon na dëkk boo xam ne dëkk bu ndóol la xale yi liggéey ñu dem ba découragé di jël gaal yi di dem ci géej di dee ci géej ñu gis ne sur le plan social dëkk bi metti na nit ñi lekkatuñu ba suur naanatuñ ba màndi ku feebar pour nga faju problème la ndax hôpitaux yi ña fa ne di liggéey amatuñu motivation amatuñu matériel bu ñu liggéey donc ñu gis ne ah ci li nga xam te ne moom la ñu yàlla may xam-xam tuuti ñu doon fajkat doon jàngalekat ndax jàngalekat boo ko xasee nekk doon fajkat rek amul lenn loo xam ne dina xew ci société te xamuloo ko am ci nag ay xalaat am ci expérience ndax diiru ak yi nga xam ne def nañ ko ci nguur xam nañu nan la nguur di doxee waaye nag xam nañu nan la nguur war a gën a mën a doxee loolu nag tey moo waral ñu samp tey suñu mouvement di woo ñëpp ndax ñu tey xàjjalewuñu ay centriste lañ bëgg a doon ñëpp la ñuy woo képp koo xam ne nii xalaat nga ni sa xel sa xalaat wala sa doole war nañ koo mën a jëfandikoo ngir lu génnee Sénégal ci coono ak ndool gi mu nekk jëm ci ci ci ëllëg yoo xam ne ëllëgu naataange lay doon ñu ngi lay woo ndax Sénégal dafa war a dem ci ëllëgu naataange Sénégal dafa am ay ressources yu fi feeñ am pétrole am gaz fu ma toog damay wax ne Sénégal normalement dans dix ans wala vingt ans dañoo war a mel ni Koweït mel ni Qatar xale yii di génn di tukki dañ leen a war a wax ne ñoom dañu war a toog parce que fii ñu nekk nii Sénégal war nañoo dem ci kanam boo xam ne nit ñi ñoo war a fëq di dugg ci Sénégal yu leen di téye te loolu am na fi li mu laaj rek mooy ay nit ñu bëgg Sénégal nit ñu bëgg seen réew seen loxo set ñu xàmmee ni am lépp ak am ñaari yoon lépp benn la li gën a tardé Afrique suñu dëkk yi mooy lan. mooy que dañuy am des fois ay dirigeants yoo xam ne dañuy fàttali ne nit ki boo xasee ba am lépp jeex na mais da ngay am lépp di wut ñaari yoon lépp ñaar yoon lépp ñett yoon lépp ak lépp benn yoon benn la loolu nag dafa doon loo xamante ne nii ñun loolu mooy ñu gëm-gëm ñu gëm ne loolu buñ ko appliqué ànd ceeg nit ñoo xam ne nit ñu gore lañ comme yéen yàlla mën na def li nga xam ne mooy coono yi Sénégalais yi dund coono yooyu mën naa mën naa wàññeeku maa ngi leen di gërëm encore une fois yéen leen sant leen tàllal loxo day jox nag dax day dox daje bu yàggul incha allah bu ñu waree ba noppi comme ça ñu dëkkalee suñu suñu programme euh, décliner suñuy structure ñu ngi leen di gërëm leen tam jërë ngeen jëf. jërëjëf.